moy li tuba di wax léthargie neurmelu bi nga xamanteni conseil national de la jeunesse du Sénégal neurmelu nuko ah oui daanu ba jaxal naka nonu juróom-ñaari atangi ni ngi wax comité exécutif national parce que ñun dañ ñoy yebal yonnu ñu ci fofu pour ñu téwal ñi nga xamanteni moy ndaw yi nga xamante ñooñu yónni ñu nekk ci diwanu fassantou ki nekk ci biir Sénégal ñukay wax membre comité exécutif national ku si nekk fi ñu la yónni da nga war a taataan xam dafay xew nga mën a dem également rendre compte gis nañ ne juróom-ñaari at a ngi nii président mu Diop benn yoon la ko tëral ci si ay tappale la ko tegoon su loolu weesoo yoreen bi nga xamante ni alal di nga xamante conseil national de la jeunesse da koy jot muy subvention buy jugee ci état wala partenaire au développement wala yeneen bailleurs yoo xam ne dañ koy jot mu war cee leeral te benn instance rek la si a leeralee mooy à travers le comité exécutif juróom-ñaari at yëpp Khadim Diop dafa lànk ne du ko teewal du ko organiser parce que bëggul ñu xam ci dara beneen bi mooy ñàkk gis-gis ak ñàkk andi ay jéego ay xalaat ay mbébét pour li nga xamante jàpp nañ ne c'est le plus grand drame du vingt et unième après la traite traite négrière mooy xale yi nga xamante ne dañuy jël gaalu ci di dem bitim réew ñu koy tuddee Barça wala Barça li ci dee ci li mu doomi aadama ci ndaw sénégalais ak africain kenn xamul ñaata la télé bi nga xamanteni ni Khadim télé nako parce que conseil national crème bi mu am ci jeunesse ak ressources humaines bi Khadim Diop bu ko exploiter woon dañ ci and ay xalaat andi ci ay nal pour que mën dimbalé gouvernement pour mën régler également question bobu non ñu japp né conseil national bi nga xamanteni moy bànqaas bi nga xamanteni nguur gi mom la yaakaaroon mu dimbalé ko ci xalat ak ci ay nal dafa jadd yona parce que lanen mo la intéressé situation bobu non mo ñu fi dajala tay ci ko lol nak ñun ndaw Sénégal nga xam dañoo am responsabilité fi ñu denk mooy CDJ Pikine ak ñi fi teew ñëpp ak ñoo xam ne mënoon nañ ñëw te ñëwuñ dañoo formé benn kuréel bu ñu tudd ak urgence CNCS urgence mooy lu jàmp maanaam dafa doy li li li li li li li espagnol di wax basta ça suffit largement fii mooy cappaandaw gi fii lañ mën a yem ak à président Khadim Diop et son bureau moo tax à partir d'aujourd'hui danañ wax Khadim Diop ak bureau am mayetuñ lañ benn sañ-sañ pour ñu wax si suñu tur. Ah maytu leen benn sañ-sañ pour ñu wax également ci turu ndaw Sénégal. parce que nag ndaw bi nga xamante ni lim atam mu ngi toll ci fukki at ak juróom ba ña juróom euh, fanweer ak ak juróom ki ko war a waxal du mag moo xamante ni am na cinquante ans cela juróom fukki at. Mm-hmm. loolu duñ ko seetaan alors cela veut dire quoi li muy tekki mooy Khadim Diop dafa lajj boobu ba léegi du communiquer bu baax. waxuma sax andi ay xalaat de boo xam ne Xaadim Diop yéena ci yàbbi pour wax ne ah lii de maa ngi koy méttilu am na sànq ku ma dégg muy wax les événements du mars kenn déggu ci conseil national de la jeunesse ñaata ndaw ñoo ci dee ndaw ñi amatuñu repère réseaux sociaux kenn du ci dugg wax sa xalaat ndaw ñooñu tey conseil national moo leen waroon teg ci yoon à travers des formations wax leen nan la ñuy waxee mais tey nërmeel bi nga xam ne conseil national nërmeel ni ko moo tax également Khadim Diop mënta remplir également mission su loolu weesoo dañoo jàpp ne réew mi nag dafa am ay kilifa mm-hmm. te ndaw yi dafa am kuñ ko dénk man du ma nii listan ah, mais ñëpp xam nañ ne président de la république Macky def na ay jéego yu am solo ci ndaw ñi projet de jeunesse bu ne gis nañ ko mais man te am njeexital mënta am njeexital ci ndaw ñi parce que ndaw ñi gisuñu loolu parce que yeggu ci ñoom pour la plupart mënta am jeexital parce que ñi ko waroon a jël yeggali ko dimbalé conseil national de la jeunesse ministère bo mu ngi tuddu ministère de la jeunesse pour la première fois ñu def ko enega également ministère bi nga xamné ministère de souveraineté la man naa ko wax non moy ministère de l'emploi ministre de la jeunesse de l'emploi et de l'entrepreneuriat kon ministère bo jox nañ ko ka yépp pour mëna dimbalé ndaw ñi mais bañ ko falé ba légui moy ministère bi nga té ni xam ngeen ko nu mu sax ñu koy wax pam malik Ndour ah, pam malik Ndour woné na la jëm wane na cuuneem ci ministère bi nga xamante dañ ko ko jox dama jàpp na nag maa ngi interpeller le président de la république ak gouvernement bi loom li ñu liggéey ak alal ji ñu def ndaw ñi war a ñoo nangu benn nit di ko yàq à également ci ministre boobu noonu nga xam ne tey bu fekkoon na taxaw na fi nga xam ne fa la war a taxawee su matoon conseil national du seq ñaari at wala wala weer wala juróom-ñaari weer te renouveler également les instances te pourtant am na lël bi nga xamante ni premier ministre jëwri ñu njëkk am na ko avec l' ensemble des 14 présidents de Conseil régionaux mu dalal leen ñu amoon yaqin ne recommandation yi mu ci def ministre de la jeunesse mooy na fexe dans les plus brefs plus brefs délais pour ñu amal li ñuy wax le comité exécutif national élargi au CDJ danañ ko amal pour ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy mandat bi parce que mandat bi jeex na nit bu ñu la falee da ngay def li nga mën nga bàyyi mais tey bëgg a dem am 50 ans bëgg a yóbbu jeunesse bi yëpp à la retraite loolu la Khadim Diop bëgg a def te loolu ko nangu la pour commencer également di dire li nga du Sénégal à travers le président de la République parce que les japp né man de japp na pour conseil présidentiel pour l'insertion de l'emploi des jeunes de 2021 lancement vacances euh, euh, semaine de la jeunesse bi liñ fa dégg ñu ko ay président bo bëgg na de ndaw ñi la du tabax terrasse du pont loolu mooy li nga xamante ne jàpp nañ ne président de la République ñu ngi ko ci interpellé pour mu defar loolu noonu. alors su loolu weesoo ñu ngi wax président Khadim Diop ak groupam bu ndaw boobu noonu ne li leen jig mooy ñu organiser sans délai li ñuy wax le renouvellement du comité et la tenue du comité exécutif pour ñu waxtaanee li nga xamante ni moom mooy les renouvellement parce que suñu mandat jeex sinon danañ ko exiger mu def ko te dans les prochains jours danañ dem également conseil national de la jeunesse assiéger ko danañ fa taxaw du fa dugg keneen du fa dugg parce que makkaanu ndaw ñoo ndaw ñi ñoo ko moom te moom doonatul ndaw loolu également dañ koy exiger alors di wax ne gouvernement du Sénégal à travers les cours de contrôle de l' état mu def audit càmbat parce que nit aussi bu ñu la joxee nga gérer l' argent du contribuable sénégalais dañ ko war a def audit un audit exhaustif du président Khalid Diop et son et son bureau parce que 2016 ba léegi ñu ngi leen di jox subvention état ñu ngi recevoir des partenaires publics au développement xaalis ba nga xamante ni kenn xamul fi ñu ko def amul ben traçabilité kon donc audit boobu dañ koy également réclamer alors di wax président de la République ñun japp nañ né am nañ solution ñun urgence CNCS motax ñu japp né dafa wara taxawal li nga xamanteni wax nañ ko euh, fara wax na ko mooy les assises de la jeunesse moy pencoo bi nga xamanteni japp nañ à partir de la base jusqu'au sommet dañ koy def mu doon ay lën ay waxtaan pour que ndaw ñi nga xamanteni ñom ñofi nek fi nekk ñoo nekk de 15 à 35 ans mën wax sen bébé parce que ki am 45 ans xamul prépa préparation jeune bi nga xam 35 ans la am wala 20 ans la wala 25 ans la am alors ñun kuréel googu nag euh, cadre boobu dañoo bëgg président de la République dimbali ak président ministre ak l'ensemble des membres du gouvernement pour que ñu amal ko suñu dimbalee danañ ko def suñu dimbalul également danañ ko def parce que on est censé représenter cette jeunesse donc que ñu ngi koy wax état du Sénégal di wax ne ko Khadim Diop lajj bi mu lajji mérite également le président du CNG actuellement mm-hmm. moo tax ñu ngi koy ñaan. gouvernement du Sénégal ak ministre bi ñu taxaw li nga xam ni mooy comité de normalisation comité de normalisation boobu à partir de ce moment donné dana taxaw li nga xam ne moom mooy réforme parce que kii wax na ko tappale weesuwul benn bureau exécutif nga xam ne ñu fukki nit ñu ne dañuy réformer ay textes xaaral ñu xam ne la textes yi mayu ko loolu ce qui entre en flagrant délit des textes qui régissent le fonctionnement du CNJS parce que seul comité exécutif moo a andi ay coppi ay xalaat conférence également nationale adopté ko pour ñu mën a wax les réformes mais dem laqalu si ben partenaire bëgg lek lekk ku ci nek bëgg wul sa dépense sa poche ne ko également dama réformer de xadim si ci tapalal nek te tappale yoy également duñ ko ci bayyi di jéxalé nak di wax état du Sénégal on est une jeunesse engagée on est une jeunesse saine et responsable et républicaine fi nek ak fi ku ci nek ya nga bay sa war ku ñëw ci makan bi gis également le conseil départemental de la jeunesse de Pikine mu don instant bo xamné bama ba dama na respecté respecté on na la mais gën na naw. gis naa liggéey bi ñuy def à travers des postes ñu ngi partout di jéem suñ kéemtalaay kattan pour tàggat ndaw ñi si la citoyenneté active sur le leadership mais également li nga xam ne si l'éco-citoyenneté parce que dañoo tolloo ci jamono ji nga xamante alam bi dafa yàqu te suñ responsabilité bu taxaw Khadim Diop mos a taxaw benn thématique boo xam ne ça parle de l'environnement parce que cuune la xamul ko te duñ bàyyi cuune également mu ñuy diriger donc loolu mooy li a wax di gërëm ñëpp li nga xamante moy combat bi parce que Karim bu jappé ne combat bi fay yem ci point de presse bi mu ngi nax bopam on sera avec lui sur le terrain partout te bu ñu ko may organiser benn également activité wala buñ ko ci wo su ko gouvernement bi ne jappé comme interlocuteur bu valable envers la jeunesse il se trompe de cible ma ngi gëna ñëpp di sant ñëpp wasalaam